bëgg suñu ñu fàtte leen couvre bi couvre-feu bi ñuy wax nii ban njariñ la am ban njariñ la am ñun baalee ñun baalee koñ boo dem koñ boo dem maire yi ñoo yor kër yi ñi ñoo yor kër yi foo dem ñoo ngay jaay fonde ñoo ngay jaay fonde seen fonde yooyu ginnaaw yàlla loolu la ñuy yaakaar ñu nekk ay gor fonde yooyu ci lañuy xëy seen location di fay seen njàng doom yi dégg nga dañoo bëgg képp kuy sénégalais gis sa bopp ci Sénégal dañoo bëgg mbir mi mu jeex ñu fi nekkoon ñu ne sant ba léegi dafa war a jeex Ousmane Sonko nag yàlla woo ñu ko andil duñ ko sàgganee ba kenn di ko def lu noonu bari na ñoo ji ci kawam man pare naa man man pare naa nenee sama waa kër maa ngi dem bu ma jafee ba mu tëdd jiyal wala ma dee wuute ko barke Seydina ñi fi nekk na miig muy xam muy Medina Baye la gëm a bokk moo xam muy Touba la moo xam muy Tivaouane la moo xam muy Omarien la na nit ñi génn na kilifa yi génn wax gis nga su fekkee ne loolu amul rey sa bàyyi na fii nii ci kër si dégg nañ ko Tivaouane dëkkee nañ ko li ko waral nag mer moo ko waral parce que dañoo seetaan bi seetaan seen doom yi di lekk yaa ngi dégg di lekk seen i yàpp muy métti te benn benn yërmande ci njaboot bi kon nag njaboot gi duñu am benn ñoom yërmande ci ñoom na kilifa yi génn nañ wax senegal pour Sénégal la te toujours dafay rester nekk pour Sénégal duñu gis loo xam ne dafa injuste ñu nekk di ànd ak loolu te duñ ci nangu loolu déggeelee wuñ ko benn kilifa respecté wuñ ko benn kilifa kilifa yi nañ génn chef religieux yi ñoom laay wax message bi pour ñoom la nañ génn parce que lii lépp lu njàgg ñoom ñooy njàgg maladie ñoom la képp koo ci dem këram comme palais te liggéeyoo tus yaa ngi dégg ñii liggéey néegu ñax yu sen la ñu yaa ngi dégg amuñ sax lu baax lépp mi ngi ci ñoom taamul dara loo xam ni taxaw nañ pour bu xeex jotee ñu xeex waaye lu dul ne ñu ngi lëkkaloog état état bu jubut bu jaarul yoon dañ koy jaarale yoon Seydi Lamine Niass loolu la dund loolu ci loolu la dee kon ñu ne de pare nañ pour loolu dégg nga mi suñu réew la keneen moomu ko ci àll ba ñëw du ñu koy defaral ñoo koy defaral suñu bopp pare nañ problème nag. merci beaucoup pour tous. 70 pour cent de la population est jeune. donc tey nangu du ñu seetaan ñu jël ndaw moins de 50 ans euh, qui est parti de rien mu jógee euh, dans la basse classe sénégalaise di ramper ba accéder tey fu mu accéder ci administration muy xeex dëgg di xeexal Sénégal ba ñu radier ko ba ñu génne ko fi mu ne mu ko ni di xeex dëgg donc je pense que. li may wax sénégalais yi lan la rek man je parle à la jeunesse waxuma ñaa waxuma ak waa age âge waxuñu ak mag ñi on parle à la jeunesse injustice nag duñ ko nangu ci réew mi injustice duñ ko nangu ci réew mi réew mi Macky Sall moomu ko nous sommes dans une dans une démocratie ce pays là n'appartient pas à Macky Sall ñun du ñu ay doomam ñun ñu ay goloom ba mu yor yetam di ñu dóor wala fu mu joxoñ ñu topp ko lu ñu mayul Ablaye Wade nag duñ ko may moom il faut mu def ko ci boppam Macky Sall daxul jàng sénégalais yi Macky Sall amul diplôme bu yi amul les gens ils s'ouvrent les gens ils s'ouvrent lim ñu waxoon mooy rupture traque des biens mal gestion sobre et vertueuse la la patrie avant le parti du ma mës a fal sama famille par décret lim ñu waxoon yëpp defu ko il n'a absolument rien réalisé Macky Sall lu ñu bëgg mooy nga lu ñu bëgg nga xam ko mooy respecter sénégalais yi te booy wax ak sénégalais yi dinañ wax dëgg ñun duñu say doom vous êtes une institut moo tax ñu respecté la mais en tant que citoyen simple comme comme ñu ñun ak yow ñoo yem ci réew mi sa suffit ça suffit attaque yi ñuy def euh, euh, avec euh, président Sonko dafa ñaaw jëm nañ ternir image naan c'est un

pavane xeex bi c'est dans les quartiers Dakar yëpp pavane Dakar yëpp pavane Dakar yëpp pavane Dakar yëpp pavane

parce que kat combattre injustice xeex ni ñu yore suñu réew moo tax ñu engagé wu ci politique gis nag ki nga xamante ne doy nañu muy nit ku set nekk nit ku sell mu di la président Ousmane Sonko ñu tànn ko xam ni mën na jële Sénégal ci guute gi nga xamante ni moom lañ ko dugal te ñi ko si dugal tey wëlbati ko xam ni combat bi muy muy mu mu nekk sénégale yëpp jox nañ ko ci bopp. sénégal yëpp jox nañ ko si nopp sénégalais yëpp fas yéene nañu ànd ak moom xeex jusqu'au bout ndax ñu jële fi lii nga xamante ni moom moo fi nekk ñu gis ni nag arrangé wu leen pexe bu ne nag lal nañ ko. pexe bu ne nag lal nañ ko waaye nag dañ ni fa yàllay defaree yàq mënu faa yegg heure bu ñu lalee rek mu wëlbatikuwaat seen kaw te incha allahu taala bii nii fa mu daan jaar rek lay jaar parce que gor kenn du ko taxal muy naax saay gor pire kenn du ko tuumaal yenn yi cette fois ci nag il faut qu'ils sachent qu'ils ont touché le sommet fi ñu yegg dafa sori te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg bi ñuy ñëw dañoo dénkaane suñuy bopp xam ne dañu pare c'est pas pour rien ñu tuddee suñu bopp les linguères de war nañ ko mën a dekkalaat tey Sénégal dinañ ko delloowaat ca fa mu nekkoon buumu jaam bi ñu makk bëgg takk di ñu diri fu ñu neex fu mu ko dina ko tekki wala moom mooy jóg abal ñu parce que nag dañ koo dénk rek ni ko yoral ñu ci ni ñu neexee noonu la ñu war a yorale mënu il n'a qu'à foutre le camp may ñu ñu toog suñu réew ñun ñoo ko moom te ñoo koy defaral suñu bopp kenn du ko defaral may lancer appel nag suñu mbooloo mu jigéen ñi ñu leen dëkk bi bu méttee ñun ñoo koy njëkk a waaye nag nañu bàyyi ñun jigéen ñi ñu ñuy nañu bàyyi ñun jigéen ñi ñuy servir de nous pour di xeex ay nit dañ ñu société xet bu dee bu baaxee jigéen ko baaxal bu yàqoo it jigéen moo ko yàq nag ñu ngi ñaan suñu mbokk jigéen ñi nañu ànd ak seen xel nañu ànd ak suñu xel lu defar ñun ñoo ko war a defar ñun ñoo war a takk suñu sër liggéey suñu réew mu jëm si kanam ngir suñu njaboot yi nu jur bu ëllëgee ñu fekk fii un Sénégal meilleur mën a épanouir suñu demee bàyyi leen fa suñu xel mën a dal ñu ngi masaw aussi la responsable propriétaire du salon bi nga xamante ni moom it jaay nañ ko doole jaay nañ ko doole bu baax a baax teg injustice ci kawam ngir bëgg rek fexe ba seen coup bi jàll waaye bu soobee yàlla nañ xam ne yàlla moo leen ëpp doole te incha allahu taala lépp luñ si bañu bañu ñu ko Macky dafa ne troisième mandat wallahi lazim bu teggiwul tànkam 2024 du ko yeggali te lii ñun ñoo ko wax lii ñun ñoo ko wax Sonko kenn du ko laal Sonko kenn du ko laal vive la justice euh, Macky xeex bii muy xeex na xam kañ lay tàmbali mais bu mu xam kañ lay jeex te bu mu xam tamit lan la ko mën a coûter parce que mi ngi fooyee loo xam ne moom ci boppam xamu ko Macky Sall mi ngi te yàlla dafa fonk nit ngir jëmmi rasulullah yàlla dafa fonk nit defar ko ba pare gën koo fonk ci lépp la mu sàkk kon kenn du fawee nit doomu aadama bi mu jël mu ne moom version bi ndaw si wax du dëgg mu ne moom loolu fekkewu ko te musu fa am te mënu fa am ñu jàpp ko di ko xoqatal di ko tiital di ko teg loo xamante ni nii dafa war a décourager bàyyi loolu nit du ko def mu am doomam war a toog ci wetu doomam mu nekk loo xamante ni kuy yaay mos koo dund xam nga lan la ndax doom ju nekk da nga soxla sa chaleur yaay moom mu ne déedéet bakkanu doomu aadama boobu nga xam ni ne tolluwul fenn juddoogul sax ndax matagul sax lu nit di bébé di juddoo mu ne moom daf koy privé yaayam daf koy privé yaayam parce que dafa bëgg yaayam dellu ginnaaw mu koy jox xaalis di ko proposé ne mais mu gore ba dee cette dame là dama leen di xamal ne leen les associations féminines la société civile génn ngeen wax ci lii ngeen wax parce que lii moo jar a wax Ousmane Sonko def na lii lele loolu taxu ñoo jóg parce que ñun xam nañu suñu leader nous savons qui est Ousmane Sonko un homme pétri de valeur un homme pétri de vertu kon kenn mënul saltel deram ñun sept ans ngi nii may ànd ak moom sept depuis 2014 may ànd ak moom fu ne fu ne doon dem nañ fa fanaan nañu àll fanaan nañ ci hôtel barki salaatul faatiya musuma gis yaramu Ousmane Sonko te dinañ yeewu suba buy sangu piscine sax dafay sol tubéyam dafay sol yéreem kon kenn mënu ko taqal ci suñuy bët et le Sénégal compte sur lui mais man loolu duñ ko tegee da côté jigéen bi ñu jël bëgg koo jaay doole parce que nag am dañu am valeur ci réew mi cette femme là c'est une femme de valeur en tout cas jikko wane na jigéen dafa war a bañ jigéen warul nangu ñu koy matérialiser cette femme la a montré que jigéen du objet te jigéen mooy nampal dafa soxla doomam ñu jël ponkalum nit teg ko mu koy surveiller parce que bëgguñu mu wax kenn li mu wax ba pare dem na organes yi mu jaar c'est des organes de presse sérieux wax bi takk na ba pare kon kenn mënu ko delloo ginnaaw léegi nag bëgg les associations féminines les associations de la société civile na ngeen jël combat bii ngeen xeex ko seen pétition yi ngeen di def pour que justice par rapport aux couches vulnérables mën a nekk am ngeen nag benn bu bees l'État a kidnappé une femme qui doit couver son enfant ndax pour éliminer un adversaire politique loolu ñaaw na ñaawlu nañ ko boo weesoo jigéenu Pastef jigéenu Sénégal yëpp et toutes les femmes du monde te xeex bi dinañ internationale. Il est temps que ça dans ce pays. Si on avait vu Sonko, s'ils avaient apporté nous n'allons pas accepter parce que c'est des mensonges, c'est des preuves colmatées et d'un complot que tout le monde savent et nous n'allons pas accepter cela. Elles attirent l'attention des Sénégalais et des Sénégalaises. Que vous soyez patriote, républicaine ou démocrate, c'est notre combat. Demain, aujourd'hui ils le font à Ousmane Sonko, demain ils le feront à un autre. Et ils peuvent Vous, vous, vous, on vient de sortir avec le problème sur l'éducation sexuelle. Nous venons de voir le cas d'Idrissa Seck. Et c'est le type de diversion que nous n'allons pas accepter. Et maintenant, c'est fini. Nous avons en face de nous des délinquants et nous allons montrer à ces délinquants Nous avons construit ce pays et aujourd'hui, nous n'allons pas laisser ce pays entre ces mains des délinquants qui utilisent toujours des armes euh, qui ne sont pas conventionnelles.

mais ñu ngi donc à la fois waxuma la ñi nga xamante ne lacrymogène yi koy sànni ñoom situation bi ñu war a jëndee défendre sa cause baax na lool suñu tëjee gisee waaye tamit sóoraale ñi nga xamante ne moom parce que bu askan bi taxee tam day mais waroon nañu ci biir ndax def nga yow ñoo xam ne mu ngi noonu